quoi nga bëgg a wax. y a des députés. y a ne kon euh, assemblée nationale bokk si député APR waxoon ne dañoo bëgg euh, yóbbu li nga xamante ne moo di conseil conseil commission d'enquête parlementaire am nañu ay relations ak Karim loolu nga bëgg a wax. y a des relations pures et aussi derrière. nee la y a un ballon qui mais ce que vous dites man non mënuma en fait. mais président institution ñëpp xam nañu sa relation avec Amadou Ba il n'a jamais voulu de Amadou il a dit qu'il a un trésor de guerre il fera tout pour que Amadou Ba ne soit pas léegi non tout le monde connaît les gens qui ont intérêt xam nga seen les gens qui ont l'intérêt avec Amadou Ba tout le monde le connaît président institution la du xam xam xam ngeen ko nekkatul ci gouvernement bi nekkoon na ci gouvernement bi mu ngi ci benn institution toog mais fu mu toog foofu il a dit qu'il fera tout son possible tout son possible Ousmane moom jóg na seeti Ousmane Sonko kaso. kan ci ñun nag xamuñu Abdoulaye Daouda Diallo ah, effectivement il a dit qu'il fera tout son possible parce que lan Amadou Ba ne sera jamais président de la République Amadou Ba ne sera rien du tout ici. léegi Pape maa ngi ñëw. parce que parce que li may wax euh, toujours mooy ça revient des questions de principe mooy xam nga li may wax toujours nee naa euh, dafa am ñaari mbir ci dëkk dafa am ñoo xamante ne c'est des problèmes de complexe mooy ñëwaat seen seen seen vie. est-ce que comprendre li ma ko mhm. li ma wax mooy ñoom jàpp nañ ne fu ñu juddoo woon waruñu fa juddoo fu ñu dëkkoon ñëw nañ ñëw nañ Dakar est-ce que comprendre nga excuse-moi am nañu xaalis dafa am loo xam ne dañu ko war a def am na xam ne peut-être man nee naa leen bu ma melul woon nii tey sama position bu may jël tout le temps bu ma demee bu ma delloo sama dëkk ñu laaj ma buñ ma nee kii doomu diw la dañ lay xeeb dañ may xeeb

ouvrir le processus électoral. jaxase carte yi jaxase carte gi même keneen buy jël Ousmane Sonko jël wala keneen buy jël. moo leen gënal Amadou Ba comprendre moo leen gënal Amadou Ba. léegi fi may ñëw ak yow euh, coowalu eh, eh, eh, malheureusement Amadou euh, Amadou Ba xam na leen parce que am na ñoo xam ne jot na leen jàngal école. léegi donc. fi ñuy ñëw ak yow bu nekkee Amadou Ba la am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom seen adduna yëpp bu nekkee Amadou Ba. et président de la République ñu toog moom ci taabu conseil des ministres. léegi Amadou Ba c'est l'État. fi may ñëw ak yow par rapport ak Amadou Ba ak coow li parce que nag euh, seen coalition coow li mi ngi jóg bi ñu tabbee Amadou Ba mu jiite li nga xamante ni moo di la coalition Benno euh, Benno Bokk Yaakaar yow mi nekk ci biir xëy na nga xam li nu xamul ñi nga xamante ni ànduñu ak Amadou Ba. exactement lan lañ koy reprocher xam nga ñi ko xam nga li ma wax toujours dafa am benn clan boo xam ne jàpp nañu ñoom appel ñoom ñoo ko moom. kan ak kan ak kan. yana Ablaye Daouda Diallo Arouna Dia ñoom jàpp nañ ne. Farba Ngom non je euh, euh, Farba Farba Farba. Euh, bokk na si ñi buum ak. ak Abdou Mbow non ah. waxuma loolu de Farba mais Farba ne veut pas hériter de ce parti. Farba n'est pas dans. je te ñooñu ñëpp dañ leen yóbbaale dafa am fu ñu bokk. ok y a des barons qui ne parlent pas. Ablaye tu vas jamais j'entends parler Arnaud Dia tu vas jamais tu vas jamais l'entendre kon ñiy wax dañ leen di wax. daf dañ leen di yónni di leen alimenter xam nga man bu ñu demee ba menacer de de mort yàggut par par daaw Daouda Diallo. est-ce que moo la woo en personne si ma woo le messager la woo bi mu la wooyee la la la wax dama ne Omar comme da ngay reewante yooyu yaa ci ëpp làmmiñ dinañu nangam taan dinañ la jàpp dinañ la la dóorlu ba rey la message direct moom moo la non il m'a appelé téléphone il m'a envoyé un message direct ok parce que je l'ai envoyé un message pour lui rappeler ses propos il m'a dit dinaa la dóor ba rey la en pulaar mais je lui ai répondu que da wax lu la neex. lan la la wax en pulaar. mooy moom fii xam maaya ba war di yimbi bi fii ma xam maaya. Oh, dinaa la boole ay nit. ko àll tuur ma bëgg a dee. parce que jàppale ne imaginer la xam lu tax. xam lu tax <laughs> ah. parce que dañoo jàppale ku ci nekk ci ñoom j'ai pris le temps de les connaître. man je connais beaucoup am na loo xam ne mënu ma ko parce que souvent je ne veux pas mettre mal à le président je le mets mal à l'aise déjà. mais je ne veux pas aller plus mais xam nga li ma wax te dañoo jàpp na ñoom Macky Sall bu fi jógee parti bi ñoom seen ndono la te beneen bi mooy. dafa am beneen histoire bu may wax toujours mooy xeebeer bi mooy am mooy ñoom jàpp nañ ne c'est les vrais héritiers de Macky Sall ñoom jàpp nañ ne c'est les vrais héritiers est-ce que comprendre c'est les vrais excuse-moi du terme Amadou Ba Amadou Ba xam nga ñun ñun on a nous nous nous qui sommes nés à Dakar nous mooy lorsque tu es né au village on te prend ñi juddoo foofu dañ la jàppee comme dañ laa xeeb c'est ça qui revient mbirum xeebel la kooku ñëw fekk la impôt domaine jàngal la école nekk foofu sa directeur à plusieurs reprises jàng ñëwaat ci gouvernement nekk sa ministre de l'économie des finances et de la coopération yow nga fexe ba remplacer te bu ñu koy remplacer direct ministère dañ ko xaaj en deux parce que nee nañ attanoo ko ñëwaat président bu muy premier ministre jël la jël jël ko moom donc Amadou a tous les compétences toutes les compétences requises pour être là le candidat maintenant ils ont dit qu'ils vont jamais pardonner le président qu'ils vont jamais laisser c'est ces gens-là jaral na ñu def ba président échoué. quelle est la responsabilité du du président Macky Sall dans tout le président il est pris en otage par ces gens-là. c'est ça moo ko moo combat moo Omar Sow c'est ça c'est le prix d'otage qu'ils ont pris le président pour dugal ko ci lii parce que le président mérite plus que ça ce qu'il a fait dans ce pays. mais nit la comme yow ak ni mu toll président Macky ak li mu représenté mais lan lay xoolee bañ koy prendre en otage. tey je te donne un exemple les gens qui parlent pour Macky Sall c'est des gens c'est les mêmes gens qui ont dit Macky Abdoulaye Wade qui doit faire un troisième mandat c'est les mêmes gens qui occupent qui parle de Macky Sall c'est le même lobby qui a pris président en otage et nous devons faire rapidement aller aux élections rapidement pour que le président puisse être récupéré parce que suñu patrimoine la